Serigne Babacar la premier bi moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam xam nga nitu yàlla ak Serigne dafa bokkul tas daja Serigne Babacar alors donc euh, lu may tënk si olof mooy euh, leen yéen aussi parce que ay ndaw ngeen tey ngeen ñëw pour couvrir euh, daje bi

ak euh, xaalis acteurs yi ñëw ñu ñun tamit Afrique ko a def parce que lépp am nañ ko xam-xam et am nañu ay xale yu xarañ ah yoo xam ne ñu ngi société yu ndaw yu wax micro entreprise yore ay start-up donc ñun suñu nous mooy ñu ñuy def ba financement si accompagnement matériel si ay conseils aussi

ne leen du Barzak la affaire yi nek affaire dañu fi fii Sénégal dëkk bi dañ ko wara a tabax ñun ñokay koy tabax muy ñun muy yeen muy ñu ñëpp ñoko ko war a tabax ku si nekk am nga xarit wala am nga jarbat cousin bo xamné ne ne projet wala mu nekk say projet wala jangale am di jaar sa liggéeyul ñun ñoo leen war a di encourager di leen di leen ñaax di leen wax ne ne affaire yi fii la parce que tamit boo demee bitim réew reyante bi yëpp dem bitim réew da ngay gis booy dem bitim réew liggéey yu ñu fay liggéey liggéey yu metti yu ñu fay liggéey condition yu ñu dëkkee ah peut-être des fois suñu ay mbokk jógee bitim rew ñew yoré auto bu rafet tabax ben kër ak yoy mais bul xam mais euh bo fa nekké aussi bitim réew euh, loolu du du du du du du réussite du succès parce que lo bëgg ñu lebal la so bëggé kër ñu lebal la so bëggé auto ñu lebal la so bëggé électroménager lo bëgg ñu lebal la mais di ko fay juróom-ñetti fukki at c'est-à-dire sa àddina yëpp da ngay toog di fay doo ñibbisi alors que je crois que nga am 1000 francs foofu nga am fii 100 francs benn la te 100 francs boobu fekkee nga organiser nga fii di nga si mën a dund dundal see waajur ñun ñëpp lu ñuy ñaan yàlla mooy toujours euh, euh, di teral suñu waajur teral ñoo xam ne tamit ñoo bokk ak ñi yaakaar si ñun lool dal mo waral événement yi ngay gis yeb ñuy def ay junni junni xalé ñëw di si bokk ba tay ñu kon di ko def ñaar fukki at

je pense que ñun ñëpp dañu war a dans une dynamique positive loolu moo am solo dans une dynamique positive dégg ngeen léegi ma di wax que Dieu il est juste moo def lu baax lu bon fekk la si c'est pas possible Ko gis toujours muy sonn bari problème kërëb kërëb kii si mu yore kurus ak yooyu boo xoolee xool bi baaxul si ñun amuñu culte de l'excellence culte de l'excellence bu kenn nekk si dara di def lu baax da nga si gën a ñaax gën ko encourager ku nekk da nga bëgg waaw góor donc xale yi tamit dañu soxla waaw góor moo tax tey ñu dajale leen ku ci nekk ñoom góorgóorlu nañu si ba am seen entreprise li ñu soxla rek mooy accompagnement. donc yéen tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen bàyyi ak le secrétaire général du ministère de l' mooy euh, liggéey bu rafet bi nga xamante bi ne MEDES mu koy def ak président Mbagnick Diop bi nga xamante bi ne at yi yëpp gis ngeen taxawaayam bu rafet bi mu am ci jàppale xale yi jàppale jeunes yi euh, pour ci salon yi muy def salon premier emploi salon yi mu def yëpp tax na te ji nii loo xam def nga ko ñaar fukki at gis nga ay jeunes yo xam bi ne formé won nga leen fexe japp nga leen tey jii nii ñu ngi ci station yu maga mag ñu ngi ci ay nit yo xam ñu ngi sant yalla di dimbali yeneen jeunes je pense que chaîne bobu manam loolu lañu wara fexé mu mu mu nekk lu lo xam lu sax la ndax Sénégal dafa soxla jeunesse am Sénégal dafa soxla manam xalé yi nga xam bi dañoo xarañ ci domaine numérique tey jii nii loolu rek moo déssé dañ naan révolution numérique mom moy dernière révolution donc révolution boobu bu ñu ko raté mo raté nañu lepp loolu rek moo ñu mën permettre ndax amna ñu jeunesse bo xam ne moo ñu war permettre ñu mëna accaparer wu numérique fexé ba développer Sénégal donc tayji salon yu melni nga xam ne start-up ay ay ay ay xalé la yo xam dañoo xarañ jëm ci jëm ci jëm ci yoon bobu dañu wara war donc li MEDES def tay lu ñu rafetlu lu gouvernement di rafetlu ndax gouvernement mu ngi ci mu ngi ci dugal loxoom baax mais aussi dafa soxla privé bi ay nit ñu melni ni Mbagnick Diop ak yeneen nit ñoo japp ci nga xam ne xalé yi dinañ am espoir xalé yi dinañ tok Sénégal xalé yi dinañ liggéey seen réew loolu lu may wax. soppe Serigne Babacar la borom VIP bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam. xam nga nitu yàlla ak Serigne dafa bëggul tas